bismillaahi rahmaani rahiim ci xasida yi rek man mën a xam sëriñ ci xasida yi rek seen ko mën a bëggale muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman anitu alil mawla taala lasi rafa waani wa maani wa akrim bihi rafa yépp koo xam ne nekk nga ci liggéeyal sëñ Tuubaa nam ware nekk ci ndigali sëñ Tuubaa ware bu boobaa sa lislaam dana rafet sa bi dana rafet loolu nag loolu rek la fiy dégg te jumaa ji ñu jàkkaar loolu seere la ci yeneen yi njàng bi ngeen fi def ba gone yi jàng bu baax a baax loolu seere la ci kon nee na mi ngi leen di sant njàng mu xasaayit mi ni ngeen góor góorloo yëg na ko mi ngi leen ciy sant mi ngi leen ciy soññ kon nee na ni ngeen xam ne rek mooy ci ndigalul sëñ bi rek mooy mooy ci la suñu njariñul tey ne suñu njariñul ëllëgit ci la ne ndax sëñ bi lim ñu digal mooy ñu bàyyi lépp lu araam te yàlla tax bàyyi lépp lu ñu sib te yàlla tax bàyyi lépp lu lënd te yàlla tax an tatrukoo muharraman wa maa kuriha li wàcci rabbikum wa kulla mustabih loolu la ñu bi digal dénk naa mbooleem te way wa ko njëkk lool la ci dénk naa mbooleem ñi aju ci man te yàlla tax yett yi nañ bàyyi lu araam bàyyi luñ sib bàyyi lu lënd woni mu tek ci ne simul wajiba wal manduba wa maa ubiha tahta wa taqriba digal na len yeen ñep ngeen sax ci lu war li yalla digli mu war len ak liñ sop ak li yalla daganal bayi len yett yee japp ci yett yi kon da ngeen làq ak jege yalla kon nak lool moy digelu seigne touba digelu seigne touba ni ngeen ci way lepp te it ne talabu alxalaali fardun yantami li kulli muslimin bi xayri waxam sëñ bi nee na sàkk lu lew farata la ci ku ne ci bépp jullit kon lu ngeen di wut na ngeen di fexe ba muy lew te xam ne ku ne la la yàlla bindal ci wërsëg loolu la rek ngay mën a am ni ko sëñ Abdou Xaadir daa wax rek boo jaaree ci palanteer ba loolu dong ngay am boo wa jaaree ci bunt bi loola rek ngay am kon jaar ci bunt bi bañ a daanu banaa a damm moo gën waaw kon nag yàlla nanu ci yàlla dimbale ñu ngi leen di soññ yéen ñépp kon ci ci loolu muy taalibi gi ni ko Cheikh Mouhamadul Fadil Mbacké daa waxe fexe leen ba lislaam ji bu mu fagg taalibi gi bu mu fagg loolu sëñ Fall daa waxe <laughs> fexe leen ba taalibe gi bu mu fagg lislaam ji bu mu fagg kon nag yàlla na yàlla defal loolu ñi ngi leen di nuyu yéen ñépp bis bii bis la boo xam ne bu yeye màggal la ndax fu sëñ bi jaar ba julli fa loolu moo indi bi ma nekkee ci néeg bi di julli li li ma dégg ngeen di ko waxtaan loolu ko indi ni fi fi fi mu julli fi lañ ñëw rek bi ñuy séddalee raison yi leene fii leene fii loolu néew na raison boo ko gis kon mbirama te bañ ko fiy jaarale jëm gànnaar ci la fi julli woon waaye moom waxoon na ne fu ma def ab jullikaay def naa fa lool ku ko xamoon def ko jataay waaw kon sëñ bi moom lu mat a fàggu fàggu na ko li des kay mooy ñun niñ niñ war a ci moom ak niñ ko wara jappé loolu ci moom rek moo des ci noonu waaye moom lam mu war a def lépp def na ko la mu war a fàggu lépp fàgg na ko nañuy def ba nag ca ba jot ca loola nag ci ñoom la dese yàlla nu yàlla boole dimbale te te di dimbale ñu ci li sëñ bi bëgg ñu ne ci te bañ cee jóg dimbale ñu it ci taalibi gi dimbale ñu it ci jumtukaay yuñ mën a liggéeyal sëñ Tuubaa yomb na ko yàlla na ko def kon ñi ngi ñi ngi sàkk ci ali ali caw mi nga xam ne moo jiite daayira bi bismillahi rahmani rahim ci xasida yi rek man mën a xam sëriñ ci xasida yi rek seen gi mën a bëggale muhammadin wa ala alihi wa sahbihi si rabba